suñuy kàddu yi itam xam naa kàddu yu gàtt lay doon ndax jotaay bi xaw naa yàgg te kilifa yi itam suba la bisu màggal gi duñ leen fi téye ñemee téye ba yenn heure yi ñu ngi jéggalu bu baax ci yàggaayu jotaay bi itam mu mel na itam li ci dolli rek bu fekkee ñeme nañ ko ci ay jàngat yu néew yoo xam ne am nañ ko ci thème bi nga xam ne moom la doon jàllale te muy rôle bi nga xam ne moo war ndaw ci société bi wala moo war ndaw ci l'islam bi te muy mel ne ndaw day ëllëgum réew di ëllëgum société bu baaxee ëllëgi lépp man naa baax bu baaxee buñ ko waajalee ci waajtaay yi nga xam ne ci la ñuy waajal euh, société boo xam ne danañ am ci moom yaakaar te dafay mel ne fa mu ko jëlee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabatul kiram ndax ku ne xam na ne yonent bi bi nga xam ne moom lay jot woote bi ci ñeent fukki at la toll ci la at yi nga xam ne ci ngay matalee dëkk sa ndaw ci la yonent bi tolloon ak ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ndax ku ne xam na ne Abubakar yonent bi ko mag a ñetti at te bokk moo njëkk jaayante kon kooku itam ci ndaw ña la bokkoon Seydina Omar bi muy dugg ci lislaam ku ne xam na ne ñaar fukki at Euh, ak juróom-ñaar la am mi ngi am vingt sept ans kon dafay mel ne ndaw ñooñu nga xam ne itam fii diine ji àgg tey ñoo ko fi àggale ba boo ñëwee ci kër Cheikhul Khadim nga gis ni mu ko indee mag ñi njëkk a jaayante ñu ci ëpp di ay ndaw te ku ne xam ne sëriñ bi bi nga fi Mamoor Anta Sali di jógee ci at yu ndaw yi tolloon te teewul tabax bu rëy bi nga xam ne tabax na ko ba tey mu agsi fii ñu di ko jariñoo waaye man euh, li nga xam ne danaa ko ci dolli tuuti te muy yàqute gi nga xam ne laal na jamono ba daj ko kàpp te itam defuñu ko fenn ci lu dul ci ndaw ndax xam nañ ne ndaw euh, mooy société bu ëllëg te bis bu leen yàqee ba fexe ba faagaagal leen ci jikko yu baax yi nga xam ne mag ñi moom lañ amee woon jikko yooyu nekkatul ci ñoom danañ xam ne ëllëg danañ mën a am société boo xam ne mooy société bu yées te loolu mooy li nga xam ne moo lañ bëggal umma islamiya bépp ba tax na euh, ni mu ko junjee ci réseaux sociaux da gis ne euh, dafay bari yoo xam ne teg nañ ko muy ay plan yoo xam ne lim ci jublu rek mooy yàq ndaw ñi yàq seen pas-pas ndax gis nañ fi euh, lu mel ne diine almaniya muy franc-maçon yeeg xeeti yu xew yu xew-xewaan yi nga xam ne liñ bëgg mooy faagaagal diine ji fuñ koy jaar mooy jaare ko ci ndaw ñi fexe ba ndaw ñi diine dootu nekkati ci ñoom nga xam ne euh, ni mën nañ koo misaal ne mën nañoo doon ay jullit ci kaw waaye ñu jëf jëfi jullit ndax dañuy fexe ba yàq seen jikko ci biir ba nga xam ne jikko yi jullit bi moom dootu dootu dootuñu ko yor te yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa waxoon lu am solo wax ne euh, juróom-ñaar yi mooy juróom-ñaar yi nga xam ne ëllëg yowmal qiyaamatul akbar bis bu ñu demee ba tiitaange nga metti lool ba nit ku nekk nekk ci ay jafe-jafe juróom-ñaar suñ borom dana leen keral ca ker ga nga xam ne kum fa keralut keroog ci aw naaj keroog ci ngay xal satane mu ne bokk na ca ñooña shababun nasha'a fi ibadatillah ña nga xam ne suñ borom dana leen keral bokk na ci waxambaane bi nga xam ne ak waxambaane da koo paase ci jaamu yàlla subhanahu wa taala kon dafay mel ne nit ki jël am waxambaane jox ko suñ borom ndax daf fi ngay toll ci at ya nga xam ne adduna soxla na la suñ borom soxla la saytaane di ko xëccoo moom nga xam ne yaa ngi ci diggante ñaar yu daase yoo xam ne boo xamul sa bopp rek mën ngaa dugg ci loo xam ne dana fitna la lay jural te itam damaa gis ne bokk na ci ñaari mbir yoo xam ne ci lañ jaar ngir yàqute àdduna bi muy jigéen ak xelum doomu aadama fëkk xelum doomu aadama ci nan fexe ba nit ki sërboom lenn lu baax duñ du ko du ko ci duy day dem ba mujj nit ki doomu aadama bi euh, dara yi ak leer dootu nekk ci moom ba tax fii jamono toll dangay gis léeg-léeg ñu ne la nit jëf na jëf joo xam ne bàyyi ma lañ xamoon ne mu koy jëf ndax di mooy yàlla goo xam ne da gis nit ñi di ko fésal fésal goo xam ne am ci ñoo xam ne sax dañ koy damoo da gis ko ndax yoonu bi alayhi salaatu wasalaam waxoon na ni li gën a euh, xotti war ma mooy nit ki nga xam ne dafa dugg ci biir yàlla suñ borom suturaal ko mu mooy suñ borom subhanahu wa xëy gin indi ko ci pénc mi wax ne moom dem mooy sàngam biig def naa ko ak diw sàngam nga xam ne xotti na war ma wala xotti na sutura soo xam ne suñ borom suturaaloon na ko ba mu koy def te yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax na li gën a ñaaw ci jëf ji mooy jëf jooju te itam dañoo àgg foofu nga gis ne nit ñi nit ñi euh, fisal aw ñaawteef da leen a gënal ka wax waxal nit ki lu baax nga xam ne nit ki yàkkamti wuñ xamal nit ki lu bon ba ko ba ñëpp mën cee jot te loolu itam da ngay gis ne ndaw ñi ñoo ci ëpp te li itam loolu itam bokk ci li nga xam ne li nga xam ne luy dundal luy dundal société la bokk ci li nga xam ne itam li nga xam ne moom mooy dundal diine ji fi may jeexale mooy bokk na ci yi nga xam ne moom lañ jaar ngir yàq diine ji ngir yàq ndaw ñi mooy fexe nañ ba suñ wasaayilul i'laam yi nga xam ne ñoo ñuy jox ay information yi nga xam ne moom lañ ñuy tegal tegalatuñ ñu benn film bu baax nga xam ne euh, théâtre yi nga xam ne sax dañ koy joué da ngay gis ne dañuy jël théâtre yoo xam ne day yàq diine ji role yoo xam ne pas-pas yi nga xam ne moom lañ gëmoon ñun rawatina yi gën a euh, yi nga xam ne ñoo gën a ñoo gën a cher ci ñun muy diggante alaqa sawjiya mooy diggante nit soxna ak borom kër nga xam ne lislaam ni mu jàngalee sëy nga xam ne ci norme yi ko lislaam teg ngir ñu dindi fi norme yooyu indi yeneen norme da ngay gis ne toujours dañu koy jàngal ci ci théâtre yoo xam ne mën nañ cee jël ay exemple yu bari yoo xam ne ñu joxee buñ defee ay signes danañ xam li nga xam ne moom lañ bëgg a ndax gis nañ fi euh, ne léegi sëy buy tas ci tribunal lañ koy tase nga xam ne gëm gëmloon nañ ñu ay këyit ba nga xam ne ku am nga xam ne théâtre bokk na ci théâtre boo xam ne mën naa cee jox mën naa cee joxe exemple muy théâtre bu TFM di teg muy théâtre wiiri wiiri te itam nit ñi gëm nañ ne loolu dëgg la te li muy yàq ci diine mu ëpp ndax ñoom dañoo jóg ngir xeex diine fan lañ koy jaar ngir nañ ko jaar ci seeni seeni xaw ma nu ma ko bëgg mën a tuddee mooy ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ñu gouvernement bi bëgg nañoo teg ay loi yoo xam ne bëgg nañ loi yi ñëpp gëm ne loi yooyu mooy dëgg te bu ñu xoolee daray diine du ca nekk te bëgg nañ koo appliquer nit ñi mooy danañ am ay série yoo xam ne ci lañ koy jaarale xool télé yi nga xam ne moom la nit ñi gën a suivre ñi di ko ci teg bu ko defee nit ñi jël ko gëm ko jàpp ne loola mooy suñu réalité te fekk mag ñi li ñu indi lool tabax yooyu lañ bëgg a kon itam danañ xam loo ndaw ñi le leen fii li nga mooy li nga xam ne moom la ñu mag ñi moom la ñu mag ñu rëddaloon ngir ñu war fee jaar ni ko suñ maam Cheikh waxee ngir bàyyiloo xel loolu tax itam ñu jël thème bu am solo bi nga xam ne ndaw ñi dañ leen bàyyiloo xel ñoom ñooy ñan ngir ëllëg ñu mën a am société boo xam ne société bu bien lay doon ngir ñu mën a am popula population boo xam ne danañ mën a taxawu diine ji ëllëg kon ñu ngi jéggalu bu baax a baax di sant sëñ maam Cheikh ci euh, mawdu bi di nga xam ne noonu la ko te ñu ngi jéggalu ci guddal gi wasalaamualeykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala qadimihi zil hablil matin wa man iqtafa atharahum ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi njuy mbokk jëli ñi fi teew ñëpp kenn ku ne sa tur sant te di leen jéggalu ci yéex a yëglu gi ak temps bu bi li taarif la boo xam ne dañ ko bindoon jëmale woon ko ci Cheikh Mouhamadou Amine Baara ngir barkeeloo ko ci bis bi comme que ay njabootam ñoo fi daje bindee woon ko itam ci baxru bi ñuy tuddee baxru tawil mooy tawilun lahu duna al buhuri fadailu fuulun mafailun fuulun mafailun mooy wax ne ma dellooti jël man saaqalim sot ko sëpp ko ci saadaata bindal cheyquna baara tagg ko ma dellooti jël man saaqalim sot ko sëpp ko ci saada te bindal Cheikhuna Baara tagg ko ne man bind way wuy jëm ci sëñ Baara lay sagoo nde buur yàlla moo def man ma yaakaar ko sopp ko te yaakaar ko moom sëñ Baara daa war ci ab julit ndigam moom ku juuyoog moom bu deewee ñu lakk ko andax yéen du ngeen màggal ki tax mag ñi am ngërëm ci seex Bàmba bis bam feeñe dunyaatu topp ko sëriñ Bàmba sëriñ Baara bam feeñee la sëñ Bàmba woo ñu ñam ne leen gan gi kat seenu gërëm mooy ki indi ko te kat njëkk loolee Ibra Faal nga fa wër di maaj te mag ñi aadoom tey du naaj yàlla def na ko sëriñ Bàmba day am gan te gan googa jël na ab ndëggoom teg ci kaw bi jant kaay leen ñu séentu ko ba sëñ baara feeñee mag ña xam lam ci jublu woon sëriñ baara jar naa fonk fonkal te maytu ko ku dul bàmba lam am xaaj ba xaajaat ba doo ko am te guuxum ndoxam nan ndal na duniyaa boroose ko mbirum yépp génnul yàlla muy mbóotu suñ boroom talam am ca xayrul xalqi kuy nooyi séenu ko te yen bim yenul Seex Bàmba nim di sa keneen la woon faaw ma góor baa diir bu néew bi rëcc ko ne buur yàlla moo xool baara bam neex ko def ko ab xarit dellu jël quraanu téeréem ba may ko ko fa diiwaanu xam nañ kuy sëriñ baara ñépp a wekk mbiram ndax ku koy fontoo borom jaam ñi folli ko ne leen wóor ne it fii nii ku fi jànni këram balaa xuus malaakal mawti jël paaka jam ko ko mu far dee te it kat buñ ko baalul bu ëllëgee dañuy fàq yar yuy bax ca biir naar yi caw ko ko sëriñ baara foo gis ab sëtam jox ko lay cëram bu dee def lu lay jaaxal defal mig toromb ko nde seen maam jo moo jaaxal rijaal yépp kenn du ñoom ku leen sóoru nag yaa suur sa dee yàlla yàq ko kajoor ak bawal saalum jolof njaay ne ñépp ñëw ci sañ baara mii jël seen tabax yépp xadd ko defal leen lu leen jommoon dañal réer gi woon ci yéen balaa yiñ xëppoon seen kaw mu jël yépp sànni ko ba muy dox di ñëw duniyaa jërim njaam ñi moo taxoon ba moo tax mu xàlloon yoonu yërmaane suubu ko ba fu mu joggi tànkam suñ boroom taw fa yërmandeem bu dee suuf si booy kooroon balaa dem ñu xontu ko ku daa am naqar baa jaaxle booy ñëw ci moom mu deñ ki ñuul ak ki weex baaxug sëriñ baaru ump ko te mbaaxam gu rëy googee waral daana dox ba gis ku màtt bañ yaakaar ne day dee mu lugg ko te it daana koo xam ne gëm nañ ne dundatul ba jooyoo ko bam ñaanee ñu gis kooko noyyi ko ba jug dem di dem soxlaam sëriñ baara moo di gë moo di mbër kilee jaasi lislaam tër na seytaane rendi ko sëriñ bàmba def kóodu yi lu koy dund dul xalam te moo xar dënam daa ci soli sirru kaste ko nde buur yàlla bam naan ndax alastu bi rabbikum la seex tànnoon sayu ko naa baara denc ko ba muy sanc tuubaa nag ci wàccaayu suñ boroom la daam dem ca dencoon sëriñ baara indi ko sëriñ baara waar wi mu bay ci yoonu murit wi day lu rëy lool lu fi xar baax xanaa mooy ki njëkke ko xerawlul ma wax yoo xam ne moom rekk moo ko am ci yoonu murit wi ak ci baayam nga takk ko te mooy fii ci biir Touba la feeñee te moom kese fi feeñee ci waa kër Seyxuna Bamba jàpp ko te fii nii jumaa ji nekk foofee la feeñe woon te bañ koy tuddit Seex Bamba moo agsi tudd ko te daawul tuddal boppam nde dafa daa yebal ku koy tuddal moom Serigne Touba te taarix dëggal na ko sëriñ Baara moom keppit la sëñ Bamba daa tëddal ci néegam ba muy ndaw lii ku dul Baara làqu ko te bam daan tëddal moom saa yu daa yeewu moo ko daan sëlëm moom Serigne Touba ca ténqam la bomb ko sëlëm googa moo tax sax sëriñ Baara cig ndawam la daan teen di jàkkaarloog aras yàlla xam na ko kon ñu tënk ko foofu rek comme que kàddu dafa alhamdulillah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim alhamdulillahi daam kay baawar ci bépp murit guddeeg bëccëg ku ne naa alhamdulillahi kon jërëjëfe Sëriñ Tuuba jërëjëfe Sëriñ Tuuba jaaraama Cheikh Muhammadul Amin ibnul Xadim ada assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu gannaaw ba nu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam gërëm seyxuna cheikh ahmad al xadim moom mi nga xam ne lim ñu defal ku dul moom mën loolu ko di ñaanal sayyiduna cheikh sidil muxtaar saa guddal aw fanam te yokku aw dërëm aw aw fanam ci turu daahira safinatul amaan bi lëkkale silaati cheikh muhammadul lamin baare yi am na sunuy kàddu du gudd ci cant rekk lay jëm ci ñi nga xam ne tey bu yëf yi melee nii seeni loxo daa dugg ca biir ndax daayira bi li ci ëpp aw ndaw la yoo xam ne dañuy xeeñtu liggéeyu Cheikh Mouhamadul Lamine ngir sàmm ndono li nga xamante ne si moom lañ fi fekk te muy seen warteef kon cant googu jiitaluñ ci kenn ku dul Seyduna Cheikh Sidil Muxtaar moom mi nga xam ne dañoo yilif njëkk mooy nekk Serigne Touba doon Serigne Touba mu doon geneen kilifteef ci sunu kaw comme niñ ko waxee woon noo ngi di ko ñaanal saa guddal aw fanam waaye di ci teg ci cant googu rakkam yu baax ji Serigne Bassirou Mbacké Baara nga xam ne moom it tey daanaka fa la ñu yendu mu ñuy jox ay xalaat ak ay conseil ak ñaanam goo xamante ne si dafa nañu maa ngi ànd ak yéen saaxir ak baatin baatin bi nag moom amul lenn loo xamante ne si bàyyi naa ko ci kon moom itam ñu ngi koy sant bu baax a baax waaye li jiital ci cant gi Serigne Bachirou Mbacke moom sëriñ Cheikh Thioro ndax lii tey bu demee nii ñu développé thème yu am solo yi lépp moom la ndax moo nekk ci sunu kanam moo nekk ci sunu gannaaw ndax lépp loo xamante ne si daayira bi war na ko def ci wàllu xam-xam mooy ki nga xam ne day taal otoom di ñëw di ñu fekk ci te ñu waroon koo fekk ci wallahi alazim leer nañ ñi laay wax li may xam nañ ko dañuy wax ne a fekk si loolu lépp ci oyofam la kon cant gi moom lay tàmbalee moom lay yem moo nekk ci kanam moo nekk ci ginnaaw kon ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm di sant yi tamit ñi nga xamante ne si ñoom teew nañ ci jataay bi buñ ci limee ku mel ne Serigne Mourtada moom Serigne Abdoul Khadim moom itam fi Serigne Bachirou féete ci ñun fi la ñu féete ci wàllu xam-xam ndax mën nañ ne ñii ngeen gis tey jii ñoo xam ne ñoom ñoo ŋànk lajnatu saqaafiya ci biir daayira Safinatul Amaan ci Serigne Ahmad Dieng mi jiite ko ak Serigne Saalix Bousso mi moom ci daaraam lañ nekk moo leen formé moo leen di jàngal kon moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm Serigne Modou Aïssa moom Serigne Xaadim Awa ba ñu ngi koy sant moom it na ci jataay bi taaral jataay ak Serigne Modou Boussa Mbacke moom Serigne Khadim Hawa Ba ak Baye Galas Mbacke moom Serigne Idaare moom Serigne Fallou moom itam mi ngi ci jataay bi waaw ñu ngi sant yi tamit Serigne Mourtada Mbacke moom Serigne Abdoul Ahad Baara Serigne Khadim Modou Baara moom Serigne Mouhamadou Lamine Bachirou Khoudia itam teew na fi ci teewaay boppam waaye teewal fi way juróom Serigne Lamine mu amul yéene teew yabal ko fi mu teewalal ko fi moom itam ñu ngi koy sant bu baax di ko ñaanal saa defal ko wér. di sant itam Serigne Cheikh Gaynde Fatma moom Serigne Khadim Modou Bara boobu itam mi ngi ci jataay bi ak Serigne Abdourahmane Mbacké ak Serigne Ibrahima Diop moom Serigne Dame Diop kër Serigne ñaan moom itam di kenn ku bëgg xam-xam ni ma koy faral di nit di kenn koo xamante ne yi yëngutoom yëpp ci daaray alxuraan la jëm kon moom it ñu ngi koy sant bu baax a baax te di ko bàyyeeg li nga xamante ni moom la sóob ci yoonu Cheikh Mouhamadou Lamine waaye Serigne Moustapha Mbacké moom Serigne Abdoul Khadim Bara moom itam teew na fi waaye monsieur bu Mbacké Kajoor di Papa Ndiaye moom itam teew na fi ñëw ànd ak ñun bis bi lu njëkk li moom itam ñëw na fi nekk ci biir jataay bi mu ñëwee dañ ko wax ne ko bi nga xam ne moom la fi moom ndax moo fi représenté état du Sénégal ñi nga xam moo kon am na cër buñ ko war a jox biñ ko ko joxee def ne man ab taalibe ngi ànd toog ci jataay bi ànd ak ñun kon ñu ngi koy sant baax ko moom Serigne Cheikh Thioro ni ma ko waxee di jaay di suñu wéyjur waaye di kenn ci ñun di suñu xarit ndax wax daaray majalis ji nga xamante ne ci daayira bi sos na ko ci Touba Guy Mbind bokk na ci ñi nga xam ne ñoo njëkk a volonté wu di bàyyi ay yitteem di ñëw di fa jàngale kon moom ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm moom ci taxawaayam ci ak ni nga xamante ne si noonu lay sonne ci xam-xam ba ñu baree bari sax di ko dàkkantale imam Malik dàkkantal woowu yàlla na jeexit ji nekk ci moom waaye di sant Serigne Modou Aïssa Mbacké moom Serigne Cheikh Thioro teew na fi ak Serigne Mourtada Abdul Xadim waaw waxoon nañ ko léegi moom itam mi ngi ànd ak ñun jotaay bi Serigne Abdul Rahman Mbakke moom am na yeneen i kilifa ñoo xam si ngi ci biir jotaay bi xëy na mënuñu kenn ku ci nekk ñu tudd la wala waaye amoon nañ yéene kenn ku ci ndax yëg nañ leen yëg nañ ñi tamit fi ngeen ñu taxaw ndax bis bi dafa rëy ñun kon képp koo xamante ni si ànd nga koog ñun rek am nañ cant goo xam muñ sañoon fa nga toog fekk saafu xante ak yow jox la suñu loxo sant la gunge la fa fa nga jëm waaye nag ñu xam ne xalam ko moo dañu fépp kon daal boole ko fi teew ci ku ñu waroon a tudd nga jéggal ñu ko te xam ne doomu aadama moom matul ma jóg la geel Sëriñ Tuuba dafa ko ngaram ci barke Seex Mustafa Mbàkkeeg Sëriñ Baara ci kattanug yàlla ak njool Màkka ak ko dar lay tàmbalee ci mbirum si di Lamin Baara mooy turandoo xayru xalqulaayi sayyiduna salaa alayhi la si abdaa sëriñ baara